Euh, mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar aussi di leen baalu ak di leen baal yàlla na yàlla boole nu jéggal ah tey nag ñu ñëw seet si sunu xarit sunu kilifa sunu sëriñ sunu lépp muy sëriñ Moussa Diop Nasro ñu ngi lay ziar bu baax a baax sëñ bi di la baalu ak di la baal aussi yàlla na sunu borom boole nu jéggal ñu lay wax nga nuyu téléspectateurs yi. Euh, jërëjëf rafet ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di. nuyu mboolem ñi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan di tàmbalee kàddu gi yàlla te moo di auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim rafet ginnaaw bi ñu la fayee ab nuyoo ñu ngi nuyu mboolem ñi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan ñëpp ci Nasru TV di ziare mboolem ñi nga xamante ne nii ñëpp ñu ngi ñuy bàyyi xel mm-hmm. ci biir réew mi ak ci bitim réew mm-hmm. waaw kon ñu ngi lay ziar bu baax a baax ñu ñu am nag tey ay question yoo nga xamante ni dañu la ko bëgg a hmm. ndax ñi ñu koy laaj bari na depuis que ñu dugal sa vidéo bi ñu la defaloon hmm. euh, ñi ñuy laaj naan lan la mën a faj ak lan lay def ak lan lay def bari na hmm. ah ñu ne nag tey dañuy jaral ñu déplacé wu ñëw ba Touba pour ñëw waxtaan si ci ak yow sunu question bu njëkk mooy ndoxu siti sonal na nit ñi sëñ bi ah ñu bëggoon a xam ndoxu siti lan mooy tax muy dal nit ak bu nan lay manifesté woo ci sa yaram. Mm. ba ñu xam ni kii ndoxu siti moo ko dal. jërëjëf rafet euh, ndoxum siti mooy ndey jàngoro yi mm. doomu aadama bi li koy dal ci wàllu baatin lépp mu ngi baasewu ci cat waaye li koy dal ci wàllu saayir yépp mu ngi baasewu ci ndoxum siti bëri waa doomu aadama yoo xamante ne nii mm. mënuñoo am wér mënuñoo nalaw guddi te fekk ndoxum siti moo leen ko teg. li njëkk ci lu muy def doomu aadama bi mooy di tàng yaramam di ko xasan jàpp dugg ci biir yax yi di ko ruux hmm. bu yàggee ba yàgg nag bu dee ci jigéen la day nekk ci biiram euh, di ko lakk nga xam ne bu fa man yu duggee da koy lakk maanaam pour mu mën a am doom du yomb hmm. bu fekkee góor la day yàq man yu bi spécial nga xam ne même boo demoon laboratoire ñu xool sa man yu sax dañ naa la man yu bi munta am doom parce que ndoxum siti moo jaxasoo ak sa deret ànd ak yow ba yàq sa man yu nga xam ne da ngay dem ba Euh, li ñuy wax néew doole ci wàllu sëy gi demee noonu yëpp man na laa mën na laa dal euh, ci loolu. Mm-hmm. am na jigéen ñoo xam ne tamit day dagg seen karaw maanaam di karas seen bopp nga xam ne da nga gis jigéen ñoo xam ne duñ mën a am karaw. fekk mm-hmm. ndoxum siti moo gis ñoo xam ne duñ mën ay ve maanaam seen ve day dagg. Euh, gis nga bu ngeen ma ma dagg la foofu sëñ bi. Mm-hmm. gis nga sama weyi ku ko xool ni man noonu laa meloon ay weyu gàtt gàtt laa daan am daawul màgg. mais depuis ma tàmbalee jël ay garabam ndax damay gis TikTok bi ñu baree bari di ma demander. Euh, ndax man dama pause wala non non pause ma mhm. ndoxu siti bu nekkee ci yow ñu bari ñu mënta am wee pour ma dëggal li mu wax mhm. loolu moom moo koy waral mhm. mais depuis ko ma commencé utiliser garabam yi gis nga ci la sama wey di sax ñëw carrément sama bopp bi aussi da daan def comme ni mu doon def noonu boo laalee muy ruus voilà yàllaa ak moom moo tax loolu dañ moo tax ma lay gën a dëggalal li ngay wax ci ndoxu siti bi wax nga dëgg xam nga jigéen ñi ñu ci bëri bëri dañu am ndoxum siti duñ ko xam dañuy jël ay pommade di diw te ndoxum siti day jaxasoo ak deret wax nañ ne ci jamono yonente yàlla nuuhin ba yàlla namee tukkal àdduna tukkal bu njëkk yonente yàlla nuuhin war gaalam ga yàlla labal ña ca des nuuhin mucc ak ñoom àndaloon ca la ndoxum siti am ndax dañoo yàgg ci ndox mi yàggin woo xamante ne nii dafa dem ba ñuy tàmbali am ay ay ay ay lu mel ni ay putantaan ak yu demee noonu moo tax am na ñoo xam ne sax dañuy diwu li ñu diw seen yaram waaye dañuy dem ba am ay rew réew yoo xamante ne ni li koy waral mooy ndoxum siti képp koo xam ne ndoxum siti set na ci yow niw mu doo am ay réew waaye doo ko bërile doo am benn benn gàllankoor ci sa wàllu yaram lu ñëw rek day mën a ànd ak moom mais ki am ndoxum siti kooku mooy lekk jën mu génn ci yaram wi wala mu lekk diwlin mu génn ci yaram wi wala mu nekk gerte mu génn ci yaram bi wala nga sangoo dara benn saabu wala benn diwu nga def ko ci sa yaram mu am lu mu génnee ci sa ci ci sa yaram mm. ndoxum siti boobu nag dañ koy faj ci doomu aadama bi ba mu wér te bi du yàgg ndax 15 jours ngay jël say garab tàqalikoo ak moom xam nga loolu yomb na maanaam nit ki nga xamante ne nii day daj lu nekk di diw di jënd ay produit di jënd ay pommade ak lu mu seer seer mhm. mën na jël garab yi nga xamante ne nii du ko coûter lu bari ci quinze jours mu tàqali ko ak ndoxum si di moomu maanaam nekk ci jàmmam macha allahu taala macha allah loolu de moom kon leer na nag wax dëgg yàlla hmm. xam nga ndoxu siti mu nekk ci yow pendant des années ci 15 jours rek mu tàkkalikook yow loolu moom ak ak cant la hmm. léegi ñu ñëw ci sunu deuxième question muy euh, bii tamit Euh, hémorroïde aussi waaw mm-hmm. dafa sonal nit ñi sëñ bi mm-hmm. hémorroïde sonal na nit yi ba pas possible yu bari am na ñoo xamante ni seen bos day génn mm-hmm. am ñoo xamante ni seen bos du génn hémorroïde lan moo koy tax mu dal nit tamit waaw bokk na ci li koy waral mooy di lekk pat lu bëri waaw ah. bokk na ci li koy waral itam mooy eh, di seere lu bëri te teeloo cee jug bokk na ci ni muy feeñoo doomu aadama bi nag mooy hémorroïde ci boppam bu dalee nit ñaare du dem toilette lu bari da ngay seere une semaine di seere 15 jours man ngay dem bay seere sax 1 mois bo xamné man nga ko tok do dem toilette te hémorroïde li tax mu don nday jangoro yi momi tam moy li dugg té du génn en général lolu moy moy def ay toxique ci bir ci bir bi di def posen ndax li wara gënte gënul yarambi. moy moy japp yaram bi bari na ño xamné hémorroïde mo leen ray té duñu ko ah. xam fièvre la bu garaaw a bo boo bu dalé do adam bi li gën rek mo ma ci mm-hmm. amna jigen ño xamné rafet ne mm-hmm. euh, hémorroïde mo leen jàpp te seen njurukaay ba dañuy jaasir benn yoon am na ñoo xam ne dañuy am doom amaat doom hémorroïde dal leen ñu jaare fa taxaw dootuñu mën a am doom am na góor ñoo xam ne dañuy am hémorroïde hémorroïde bi mooy dem ba jàpp sidit bi nga xam ne moo jàpp seen awra jàpp seen saakara nga xam ne dootuñu sax mën jug wala bu jugee day nooy wala bu jugee du dëgër loolu lépp hémorroïde da koy def ci da koy def ci doomu aadama bi da gis ñoo xam ne duñ toog ci mbooloo ndax bu ñu toogee ci mbooloo da ngay gis seen biir bi di jooy xur xur dañu rus mm-hmm. duñ mën a toog ci biir mbooloo am na ñoo xam ne buñ géexoon tey ci biir mbooloo da gis xet goo xamante nii wala li ñuy wax li tubaab bi tuddee mauvaise haleine maanaam gémmiñ guy xeeñ goo xam ne pat bu koy jënd boros bu ne da nga jënd luy weexal bañ nga jënd ko lu ne nga def ko ci bañ waaye du tee xet gi moom ca biir ca biir la xet gi di génne ndax dafa am luy dugg ci sa biir loo xam ne génnal hmm. sagam génnul nag day kii am na ñoo xam ne nag émurit dem ba fa def picc génn ca buntu suuf ba nga xam ne yow day génn nga di ko dugalaatal sa bopp wala muy génn di la sonal doo mën a toog am na ñoo xam ne tey buñ toogoon duñ mën a toog benn place fekk hémorroïde moo leen ko dal moo tax hémorroïde li mu yàq dafa bari te bëri na borom xam-xam yoo xam ne hémorroïde moo leen rey ñun nag hémorroïde képp koo xamante ne nii dal na la niñ ko waxee woon ci ndoxum siti bi noonu la demee maanaam ndoxum siti ak hémorroïde daanaka ñooy bokk traitement da nga ndoxum siti bi day dañ hémorroïde bi dañ ndax ndoxum siti bu yàgg ci nit moo indi hémorroïde bu ndoxum siti bi dañee rek hémorroïde bi dañ ngay diseere normal di lekk normal ndaxte nit ki bu fekkente ni mu ngi lekk normal di diseere normal jour bi war na cee dem benn yoon minimum toilette wala mu dem ñaari yoon toilette waaye boo toogee une semaine 15 jours gaawul jug ci sa bopp bala muy gën a ëpp loxo. absolument. ah gis ngeen mu ngi noonu kon boobu hémorroïde bi leer na bu baax a baax a baax a baax a baax ci ñi nga xamante ne ñu ngi ko doon laajte mhm. euh, beneen bii may laaj nag moom. Euh, amal na solo ñu baree baree baree bari ndax depuis ko ma defoon publicité bi ma la defaloon maa ngi gis ñu baree bari di ma demander euh, nan la ñuy def ba loolu dañ nga xam ni kon lu soxal réew mi la mhm. muy néew kàttan waa mhm. am na ay nit yu bari yoo nga xamante ni loolu sonal na leen léegi ni mu baree ci sunu jamono bii mhm. euh, lan moo waral mu bari nii trop trop trop trop bokk na ci rafet mooy comme ni la ko nit ñi waxee daanaka ñun chaque jour ñu jot ay junni junni appel yoo xam ne Euh, wàllu ngóora la ñuy wax. ba sax léegi dem nañ ba téléphones yi ñun kay kese nuñ ko wuyu ba dañoo wut ay doomu aadama yoo xam ne. ñoo ñuy jàppale ci wàllu euh, clients yi ak yóbbante yi fexe ba enveloppe yi yi war a dem ci CP e, dem ci CP. E. yi ñu war a yi àllu Dakar yi war a yóbbu alu Dakar yi yóbbu ko mu dem mu dem Dakar ndax ñun Touba lañ basé wu. ak ak ci yeneen dëkk euh, daanaka chaque jour rek ñu ngi jël ay yóbbante di di di ko yóbbu ngir doomu aadama yi ci boppam maanaam satisfaction yi ci wàllu googu Euh, damay faral di wax ne lekk gu neex am na kër bàyyi bu dee oto nit ngoroon nit may ko ko bu dee kër nit ngoroon nit may ko ko waaye nag jigéen boo ko takkee andi ko ci biir kër nag dafa am lu war ci wàllu dëkkoo gi ak ci wàllu dëkkal gi ñu bëree bari bu ñu waxee ñu teg ci baat wala ñu dem ba yab leen fekk na dañoo mënulu seen soxna lu bari dëgg la euh, ñàkk kàttan nag li koy waral bari na ndax mhm. euh, bu dee ci wàllu siti bii mhm. day téye kàttan doomu aadama waxoon na leeral naa ko léegi mhm. mooy day tàngal biir bi dem ba man bi mu yàq ko am na ñoo xamante ne nii hémorroïde moo téye seen kàttan day dem ba awra bi mhm. am na ñoo xamante ne nii nag carrément rab moo leen toppoon wala ñu topp seen bànneexu bopp daan fooy seen bopp ba dem a dem ba amatuñu kàttan mhm. daanaka sax ngir ñu déclenché wu jafe-jafe lay doon mhm. euh, loolu lépp nag boo ko gisee ñaare lekk yi tamit da ciy participer mooy lekk yi nga xam ne moom la ñuy lekk naan yi nga xam ne moom la ñuy naan yu demee noonu ndax suñu maam yi nga xam ne dañ daan euh, ndekkee dugub muy laax dugub muy cere da nga ciy gis ku dem ba am 80 ans di am ay doom di ngénte di sëy nga gis sa relation bees bi nag ku ci am 20 ans 19 ans 18 ans tàmbalee néew doole tàmbalee tële euh, kon nga xam ne am am am ci wàllu lekk yi am na am na lu mu ci participé mm-hmm. waaye ba tey tamit yi mën a njëkk limal noonu am na yu mu ci def am na ñoo xam ne dañu leen takk xala da nga am ñaari soxna boo demee ci kii man boo demee ci kee doo wala boo demee ci kee man loo xamante ne nii boo demoon ci kee ka ca des doo ko man mhm. loolu tamit ñaari daf ciy am mhm. yooyu yëpp ay ay xeeti jàngoor la yoo xamante ne nii dañ koy faj ci 15 jours mhm. doomu aadama bi nga xam ne dafa tële te nangu na ne dafa tële te nangu na ko faj eh, wàllu tële nag boo ko waxee daanaka ñu bari am na ñoo xam dañ lay woo la sëñ bi daa bëgg nga seetal ma lu tax ngay lu damaa tële nga xam ne daanaka tële bi moo tax ngay seetlu te dèjà xam nga ne da faju rek moo la war ndax ni ndoxum siti di gàllankoore nit mu mhm. di gàllankoor nit cat di gàllankoor nit tële tamit noonu lay dalee nit feebar la comme yeneen feebar yi rek bu la dalee dangay ngay nangu ne da ngaa nangoo wax tële gi ni mu demee nangoo faju mhm. lu dul yoom rek garab yi mën na koo faj mhm. lu dul yoom bu di judduwaale yoom bi dam nit garab yi mën na koo faj boo ko toppee tu koo bàyyi tële garab yi mën na koo faj ci quinze jours bu fekkente ne nag yoom bi doomu adama bi da koo judduwaale nag loolu moom du lu ñuy faj foofu tamit danaa fi prox ndolluwaale di uh, waxaale ñi xam ne dañuy wootee di laaj ci wàllu yokk yokk awra wax naa ci ba tàyyi ne nekkul lu mën a nekk awra du yokk ndax mën nañ laa jox sax pommade boo xam ne da koy diw ci awra bi muy néwi wala nangam na waaye bu néwee tamit daanaka du la amal njariñ xam nga lu néew yi toll ni ñay te amul njariñ mm-hmm. yor li la suñ borom bindee woon mu am njariñ moo gën day faral di wax ne mm-hmm. ba ilaa yu mi diin ak fu ñu mën a yokkee ak ku mën a yokk doo mës a dégg ku taxaw ne la diw moom ma mm-hmm. doo mës a dégg ku taxaw ne la diw moo ma yokkal sama awra ndax bu fekkee yokk awra am na kon wàññi awra waroon naa mën a am te wàññi awra amut mhm. koo wax ne koo gis mu ne damay yokk ba ndax da ngay wàññi mu ne déedéet mhm. cër yi ñu doomu aadama yi bu fekkoon yokk awra am na kon euh, ngeen baal ma ci kàddu waaye laago du am ndax ki laago dafa am cër bu matut mhm. bu doon yokk cëru doomu aadama lu mën a am la dañuy dem yokk cër booba rek cër ba taxaw mu mën a dox ay soxlaam kon ku la ne mën naa laa yokkal sa awra demal wuti ko laago nga ñëw jox ko mu yokkal la cëram ay cëram ba noppi doog laa mën a yokkal ndax awra dafa doon lu sensible loo xamante nii lu ciy dem luñ ci diw wala luñ ci def wala luñ ci wax rek dafa wara doon lu naturel lu leer képp ku la ne man na ma laa fajal sa néew doole muy impuissance sexuelle wala éjaculation précoce wala koo xamante ni dafa doonatul góor dafa tële wala koo xam ne dafa dem ba yom benn yoon képp ku la ne man naa la koo fajal te jëlut garab boo xamante ni naturel la produit naturel waxulu li am garab bu mu mën a doon moo xam garabu tubaab la moo xam produit simi la moo xam garab bu mu mën a doon boo ko jëlee da lay dànk bàyyi la nga dem waaye faj carrément nag moom garabu olof yi moo koy def te ñun moom lañ yor moom la <laughs> eh. bi leer na nañ. Mm. man de bari na ci loo expliqué loo nga xamante ne mm. xaw ma ko mm. ndax damay gis lu mel ne euh, ñi nekk jasab. Mm-hmm. damay dégg ñu naan dañuy yokkalaate mm-hmm. foofu mm-hmm. ak nangam ak nangam mais selon que sa explication bi. te tamit kenn ku nekk xel nga yore di xalaat. Euh, handicapé yi ñu baal ñu mais ku manqué cër ci sa yaram. segam mënuñu koo yokk loolu buñ la ko waxee. Euh, sa xee wax dëgg yàlla li nga wax nii ah, absolument loolu tamit jar na bàyyi xel bu <laughs> eh, baax a baax a foofu dañoo war a gëm yàlla xam ne mhm. yàlla moo def ñii ñu njool mhm. def ñii ñu gàtt def ñii ñu gudd def ñii ñu kii Mhm. bëri waa na ku njool gudd rëy koo xam ne bu dee woon bu ñu mënoon a bu ñu mënoon a yokku cër sax ma yokkulu pour gën a gudd gën a gudd ndax gàttaay ah. rek <laughs> voilà euh. léegi nag euh, sunu dernière question bi euh. ñu bëgg a waxtaanee ak yow yii moom leer na bu baax a baax a baax ñetti question yooyu ñu posé mais beneen bi ñu bëggoon a xam mooy yow yan xeetu ñaan ngay def ci baatin ndax tamit bu gaa yi jàppee ni loolu rek ngay faj te xamuñu tamit yan ñaan ak yan lan ak lan nga mën a def ci ci baatin tamit ci wàllu baatin waa ñu bëggoon mu leer rek loolu mm, mm, tamit mm, xam naa xam naa foofu nga may ma ma njàmbaas tuuti ci wàllu kàttan boobu doog ñëw ci wàllu baatin bi mm-hmm. maanaam mooy jigéen ñi nga xam ne ñoom tamit dañoo néew kàttan soxla garab yi dafa bëri jigéen ñoo xam ne dañ ah, may dafa am ay jigéen yu tey rek am na benn jigéen gu ma woo ma moom 10 ans mu ngi sëy mais mus sa yëg bànneex digganteem ak borom këram ah am na si ñoo xam ne dañ lay woo la man de sëy naa 5 ans musumaa yëg bànneex bi ma tàmbalee jël garab yi ci la tàmbalee am envie di sëy waaye musuma am envie am na ku góor ko mosoo soo koo xam ne nee na ma Mm, soriwul dara waaye dafa maa wax ne ma maanaam moom saa bu waree sëy ak soxnaam rek daf koy neexal pour soxna si mën a nangu parce que dafay am douleur bu muy yëg buy sëy ndax li ñu wax léegi ci wàllu hémorroïde wax ko ci wàllu ndoxum siti muy tëleloo góor loolu tamit day tëleloo jigéen dafa am jigéen ñoo xam ne dañoo tële maanaam du ñu yëg bànneex am jigéen ñoo xamante ne nii lii yàlla def ci ñoom nga xam ne moo war a préparer sëy bi moo war a génn ci ñoom ba pare ngir seen kanam mën a tooy ñu mën a sëy normal loolu ci boppam dafaa nekkul yooyu tamit day am te loolu bu amee mettit day daal am ndax yàlla moo préparé noonu euh, doomu aadama comme ni yàlla préparé ay tiflit ngir doomu aadama bi suy lekk li muy lekk mën a mën a jàll. noonu la demee moo tax ñi nga xam ne loolu dal na leen buñ ci am benn gàllankoor buñ ci am tamit benn kersa gis nga faju amul kersa sëriñ bi nga xam ne da ngay xëy téeméeri nit woo ko kii ne ko nangam kii ne ko nangam kii ne moom jàppul nit ki turam ak fa mu dëkk ak la ko la ko moom li ko intéressé rek mooy client bi faju ba mën a indi keneen bu dee ci wàllu baatin bi euh, rafet ñun wàllu ñaan dañ koo doon man sama baay dama doon wax ne ma yow de boo ñaanee nanguwut war ngaa xoolaat sa bopp ndax sa juróom-ñaari maam yëpp dañuy ñaan maam bu ma mës am rek ñaan faj soxlay doomu aadama yi ci kurus moo doon moo doon moo doon liggéeyam li ko tàmbalee ci sama waajur sama waajur bu góor ak ñëwam Touba sëñ Saliou moo ko sabab ndax sëñ Saliou moo ko yëkkatee fa mu nekkoon andi ko Touba ngir ngir muy dimbali jaamu yàlla ci wàllu googu su masaan a xëy bala muy ubbi buntam buntam day fekk nit ñi toog di ko xaar mm-hmm. mu leen ni fajal seeni ajo ba yàlla dogal ñun tamit ñu gimmee ci pegg boobu di jàng di xam di gëstu di gëstu ba yàlla dogal ñun tamit lu toll ni lañ ca xamoon ñoom ñu xam ko boole kook ñun tamit suñ xam boobu ba nga xam ne moom la ñu gëstu xam ko mm-hmm. moo tax wàllu baatin lu ñu donn la bëri na ñoo xam ne dañuy jàpp ne sama spécialiste mooy kàttan dëgg la loolu gëstu nañ ci ba man ko ba xam ko euh, ndax fekk nañu suñuy waajur di jox ay garab waaye wàllu baatin nag moom dafa doon loo xam ne dañ koo doon te damay faral di wax ne woote bi bëri na wax ji bëri na bëri waa na ñuy woote ñoo xam ne bu ñu ko wootee ñaari fan nga gis ku ne kii de ca nangam la nekkoon daa doxut mu ñëw ci ñaan gi mm-hmm. wala nga dégg ku ne kii de maa ngi moom a bokkoon daara waaye nangam nangam mm-hmm. waaye nag ki nga xamante ne nii moom dafa juddu fekk waajuram di naaw dafa juddoo ci tàgg li olof yi wax li ñaan ku juddoo ci tàgg bu naawul jox jaaxle bokkam dafa juddu. fekk ay mbokkam di naaw mu du di naaw kooku bokkut ak ki nga xam ne day expliquer loo xamante ne nii sax boo xoolee xam-xam daanaka du ci feeñ daanaka télé yi ak yi boo koy seetaan te doon kilifa doon sëriñ yow sax da ngay mujj xeeb sa bopp ndax da nga xam ne xam-xam amatul waaye li am rek mooy maaman maaman maaman waaw te bari na nag euh, bërigo yu deful dara yoo xam ne da suñu tubaab daa wax naan bërigo yi duy ba fees ñoom yëngutuwuñ waaye bërigo yi deful dara nag moom ñoo bëri ñoo bëri jalaw jalaw moo wàllu baatin bi dañ ciy jëflanteeg ay njiiti eh, mbir maanaam ñoo xam ne dañuy jiite ak kuréel dañ ciy dañ ciy jëflanteeg ñoo xam ne dañuy soxla ndombal tànk dañ ciy jëflanteeg ñoo xam ne dañuy bëgg bennoo seen digganteeg ñi ñuy liggéeyal te yooyu yëpp yàlla dañ cee may ay mbir yu yéeme yoo xamante ni dañ koo doon xam nga ki nga xamante ne ni rafet day ñaan te bu nijaayam jaaxlee ñaan loo ko bu magam jaaxlee ñaan loo ko bu yaayam jaaxlee ñaan ko loolu mooy dëgg-dëgg ñaan mooy dëgg-dëgg baatin mooy dëgg-dëgg xam-xam mooy xam-xam bi nga xam ne ñi la wër ñoo koy nangu mu doog a dem ci ci marché bi benn bis laa ci am ak jaaxle lool mm-hmm. ma def ci listixaara mm-hmm. te dugg di gént gis sëriñ Tuubaa war ma kanam ne ma boo dee ba birib sàngam ci Daaru Salaam nga jël fa nangam ak nangam képp koo xam ne diis na la soxla su dut faatu rek boo ko joxee yàlla mën na ci def wér may topp loolu di topp loolu ba toog ak koo xamante ne nii sëtu borom gaawaan la maam si mm-hmm. eh, mën na maa tudd turam sax ndax lu amul seede baaxul muy Serigne Mbacke Madina leeral ko ko mu ne ma loolu def ko ndax suñ Tuubaa doonul koo xam ne seytaane da koo ñeme bay bay bay melokaanoo melokaanam ma dem ba fa ba fa ma sëriñ bi waxoon ma taxaw fa far yàlla dogal murit saadix bu boo xamante ne nii ku liggéeyal yàlla la liggéeyal magi yàlla fekk ma fa ma taxawoon ne ma bërëb bee ngay gis ne de Sëñ Tuubaa def na fa te nim ma ko waxee ak nim ma ko joxee ñeen noonu lañ ma ko doon waxee ci biir gént gi oh. ma xam ne ndege lii doonut ay caaxaan absolument ma tàmbalee fi ma tàmbalee di tari Mhm. lañ ma doon digal di tari ba àgg foofa mhm. jël ca loola yàlla dogal ma dem Saalum di fa wut ay garab daje fa ak genn góor goo xam ne chef di wilaasu dëkk la ca foofa hmm. ñun ñëpp mënoon na maa tudd seen tur waaye ngir ma moo tax am na ñoon naa tudd seen tur am na ñu du mhm. ngir euh, buñ déggee xam ne lii laay wax te lii ñoom laa ko séqal dëgg la te nit du toog di wax ci koo xamante ni am nawleem la ci loo xam ne doonul dëgg dëgg la yàlla dogal am doomam joo xam ne dafa jekki-jekki rek daanu di cadd cadd di cadd caddi ba nara a des ci ay loxo ñu indi ko wax ma ko may leen mën de uma lan lu ma yaakaar mhm. xanaa lu dul lii nga xam ne Sëñ Tuubaa moom ko digaloon mhm. yëkkati ko jox ko góor googa te góor googa daanaka am na soixante-dix ans bi ma ko joxee doom ji ci saase mhm. ci saase la jël wér du murit ci man ndeysaan nga xam ne bi mu jël ci man sax wér du murit booba awuma ndigal lu joxe wér du murit waaye jox naa ko en ñu wax ko nag euh, ki nga xam ne mooy sama bunt Sëriñ Tuubaa mu ne ma bisu tey bii laa lay seexal ndax yow Ah, yayoo nga nangu nangu nangu njëbbal waaw maanaam sama diggante Sëñ Tuubaa nii la demee moo tax man awuma sago ci Sëñ Tuubaa man bu nit xasee bëgg Sëñ Tuubaa rek yàllante woon mu bon yàllante woon mu baax lu mu mën a mel man bëgg naa ko balaa dara lii la ma lii la ma mère bi wax eh. dane ma nu waay mën a mel ci àdduna hmm. te bëgg sëriñ Tuubaa rek ñun bëgg na waaw ñun daal bëggal sëñ bi rek looloo nu ñor loolu nag ak <laughs> cant la kon wax dëgg yàlla eh. kontaan nañu lool eh. sunu déplacement nu ko ndax li waroon a leer ci bopp yëpp leer na amaana bu doon maa toog Ndakaaru bëgg koo expliquer du leeree nii moo tax déplacement bi rek mooy tax mu leer cant ak ngërëm nag ñeel na la yi tamit ngeen daal di laal nag cloche de notification yi bu ngeen bëggee muy ñëw ngeen abonné bu baax a baax a baax ci Nasrou TV ah abonné leen bu baax a baax a baax te ngeen dem ci page TikTok bi aussi mu nekk rafet jiko euh, rafet jiko euh, euh, Instagram aussi mu nekk rafet jiko officiel ñu abonné fa ndax dañuy lu lu bëree bëri loo xamante ni sëñ bi da koy def dañu ci dañu ci liggéey ak moom di ko dugal kon c'est important ngeen abonné ci page yëpp incha allah yal na yàlla dolli jàmm sëñ bi kontaan nañu lool mm. waaw yow moom mm. borom baax nga mm. yal na yàlla defal la jàmm ak tawféex benn kii daal la xaw a am muy jóob gi mu sant rek moom ma xaw a jaaxal may buuram waalaa <laughs> ah. mais yal yàlla dolli jàmm jóob <laughs> kontaan nañu